day ab bisitu siyaar ngan la bu mu ganale waa Dakar ngan ga sax na mu demee mënees na leen cee wax dara ndaxte sag bi mu ñu sagal ak njabootug sëriñ Touba gépp ak mbokkam yi nga xam ne ñoo moom a nekk ci tool bi muy lislaam ñëw fii am fi ayu bés la fi am gaawu la fi ñëw ci dibéer la fi ñëw ci suba ba ca dibéer ga ba ca altine ji mu doog a dellu tuubaa julleeg ñun fii àjjuma ubbi jumaa ji jaadu woon na ñun ñii ndakaaru nga xam ne ñun ñii la yàlla baaxe ba euh, euh, néeg bu tedd bi ñu dajaloo ñun ñëpp bu ñuy dugg oto di dugg oto bu ñuy dox di dox bu ñuy raam di raam dem ba fa mu nekk tuubaa ni ko jëf sant ko gërëm ko ci lii mu ñu defal nga xam ni mënuñu ko woon ñàkk kon dina ñëw la 27 incha bu neex yàlla fii tamit lay jullee juma bu jullee juma it fii lay des ak ñun yendoog ñun ba saa su ko soobee mu dem dali fee ca Colobane ca kërug sëñ Touba gi nga xam ni kërug sëriñ Touba la mm-hmm. dañ ko fi defaloon Serigne Touba te ku ne xamit na mu demee kër ga ak taxawaay bi mu am ci taxawaay ci kër gi ñépp xamit ni bi muy ñëw li ubbi jumaa ji fa la daloon ndax sëñ Touba kër sëñ Touba rek la bu ko defee mu nekk feek ñun samedi nekk feek ñun dimanche lu mu ci bëgg nag ci diggante boobu bu ñëwee ba wax ñu ko ñu ànd ci ak moom ndax ñun amuñu ak bëgg amuñu ak bañ li bëgg rek lañ bëgg li fi xewoon sëñ bee ngi ñëw Dakar doy na événement ba nga xam ni ñi nga xam ni ñoom lañ ci àndal ñi ci jiitu di boroom réew mi ak administration di ko ci yaakaar ci ndimbal te yaakaar bu wérit ni dinañu ci jàppale ndax ba ñu ko jëkkee wax sëriñ bi man mii la wax ni ma naa ko ko wax maa ko ko waxal sama bopp ci téléphone ci jotaayu sëriñ bi ak Cheikh Mouhamadul Bachir mu bég ci lool kon yëgal naa ko ko wax naa ko ministre de l'intérieur yëgal nañu ko ko xam na waxtu yi muy ñëwee li ci des nag moom it dañ koy bàyyeek boppam bàyyi ko tamit ak sëriñ bi ba nu mu ñu waxee ni noonu lañ koy bëggee di ko muy dérouler ci ak jàppaleem loolu it buñ ca eggee loolu ci war a mën a yaatal dinaa ko yaatal ba yéen ñëpp ngeen xam